beneen bi may wax mooy ci wàllu euh, Sonko ba mu demee fële jàkkaarloog sëriñ bi mu ne sëriñ bi yow laa yaakaar àdduna ak àllaaxira Sonko bu fekkee mun nga jot sama audio wala sama live bi samay kàddu li nga jàppoon ba mel nii ne bu ko bàyyi jig na la olof day wax loolu gis nga yàlla léeg dina la jàppale c'est parce que da ngaa wéeru ci moom c'est parce que da nga jox sa bopp yàlla jàppale la yàlla bu la dimbali ba nga wéetee ba nga nekkee yow kese tolof-tolof mu def ci xolu nit ñi ñu bëgg la ba génnee la ci situation yi nga nekk dellool yàlla moomu njukkal sëriñ si nga yaakaar ñu seen bopp ba lay mënal àdduna ak àllaaxira sëriñ si nga yaakaar taalibe yi lañ yaakaar ak politiciens yi sëriñ si su ko taalibe bi joxul du dund su ko politicien bi joxul du dund comme kii nga yaakaar àdduna ak àllaaxira taalibe bi la yaakaar ak politicien ka yaakar nit ka yaakar doomu adama ni yow pour lek ak nan kooku nokay koy sa bop nokay yaakaré aduna ka lakhir la la mënal comme Sonko la la waron moy sante yalla mo la borom subhanahu wa taala waxna ni man amila amalan ashraka maaya ghayri taraktuhu wa shirku kep ku jëf ak jëf bolema ak kenen yalla mune ma bayiko ak koku te bula yalla baye ak si non do dem comme lol sa bop ci yalla denkel sa bop yalla gemal yalla àndal ak yàlla àndal ak yàlla ni nga moom démb ak barki démb bul def sa xel ni ñii boo leen neexalu rek doo am nguur déedéet yaa ngi juum qul illahumma malika al mulk tuuti al mulka man tasha wa tanziu al mulka mimman tasha yàlla moom moom moom nguur mooy jox nguur ka ko neex moo koy jëlee ca ka ko neex ko la moo fi jar est njëriñ la woon kàddu yooyu nga wax bokkaale yooyu nga wax est-ce waroon nga ko wax ban njëriñ nga ciy jëlee ñàkk ko wax ban lor la ban lor nga ciy am maanaam ko waxul woon ne yow laa yaakaar aduna ak alaxira ban lor la lay dikkal imaginal boo waxoon loolu bokkaale bu rëy boobu nga xam ne yàlla ne ku ci dee safar nga jëm soo ko waxoon génn faatu fan nga jëm kon su fekkee mën nga ma dégg li ma lay conseillé mooy li ngay def mën nga ko def fekkee yoon boobu nga jël wéeral sa bopp yàlla ku doyloo ku doyloo yàlla rek yàlla doy la yàlla dimbali la mais soo jëlee say mbir jox ko keneen yàlla bàyyi la ak ñooñu te bu la yàlla bàyyi ak ñooñu rek loolu problème la te affaire yëpp dil rek boo la xoolee affaire bi ba mu demee sëriñ bi taxaw di ko yuuxu di ko kii loolu dil la maanaam mafia bi fu nekkoon diggante Senghor ak sëriñ yamu ya ko doon jàppale ak Mamadou Dia ba sëriñ yooyu fexe ba xeex Mamadou ja ba dévier jeunes yi ba bañloo jeunes yi Mamadou ja yoon boobu la ñu bëgg jël jamono jii muy dil yooyu moo am dañoo bëgg sëriñ si fexe ba moo tax ba nga ñëwee loolu wàññi la sëriñ bi di jëm a wàññi di la yuuxu di la dàngam te pourtant ba keneen ki ñëwee deful loolu comprendre il faut nga xam dil yooyu kooku nga daan ni moom laa yaakaar àdduna ak àllaaxira ci ay dil la nekk ci ay dil la nekk comprendre loolu xama dënkal sa bopp yàlla soo dënkal sa sa bopp yàlla rek yàlla jàppale la mais jour boo jëlee yàlla boo trahiré yàlla dénk sa bopp yàlla yàlla bàyyi la ak ñooñu bi nga nekkee situation yàlla moo la dimbali te sam njàmbaar yàlla moo la dimbali parce que da ngaa dékkoon sa bopp yàlla mais dem ci sëriñ bi sukk yow laa yaakaar aduna ak àlaxira ba nga koy génnee xam nga ni loolu bokkaale la ko wax loo koy wax ñàkk la la lay jëriñ ñàkk wax la la lay yàqal mais du la yàqal ñàkk ko wax yàqalu la dara la la lay yàqal la la lay gàkkal ci ñàkk ko wax loolu wax bi nga wax sëriñ bi yow laa yaakaar aduna ak àlaxira ban njëriñ la am après amul njëriñ sa carrière politique amul njëriñ ci sa diine bal sax day màbb diine loolu comme tuub ko tuub ko nga delluwaat ci yàlla nga xam ne yàlla moom may may nguur ñoom mënuñu dara ñoom bu ñu mënoon dara 2012 ñooy fal Ablaye Wade bu ñu mënoon dara 2012 ñooy fal Ablaye Wade bu ñu mënoon dara 2019 ñooy fal Idrissa Seck comme mënuñu dara yàlla moom moo mën am na ñoo xam ne boo ko defee nag yàlla bàyyi la ak ñoom bu defee nga wéet te du ko jar